sëriñ Basiiru sëriñ Xaadima ba nag moo ma fi yebal ma ñëw fi seet si association bi nga xam ni dimbali rek moo ko tax a jóg dimbali njabootu Sëriñ Tuubaa gi ak way néew di doole yi te sëriñ maam Cheikh jiite ko muy association éducation ak santé ñu ngi leen yu baax di leen siyaare ci turu sëriñ Basiiru moom sëriñ Xaadima ba moo ma fi yebal di bokk ak liggéey bu rëy bii nga xam ne moom ngeen sumb di ko defal askan wi dafa yëf yi ngeen liggéey bii ngeen xam ne commencé ngeen ko di ko def réenu ci moom rëy goo xam ne da ko fekk ci ay xat-xat ak yitte yu demee nii mun na ca waaye kon nee na moo ñëwal boppam ndax xam na ni liggéeyal Serigne Touba ak ngeen di def ak seen maam maam Cheikh loolu nag mu ngi koy bokk ak di leen ñaanal suñu borom may leen ci ndam. yooyu kàddu la ma wax ne bu ñëwee naa leen ko jottali jotti ko jottali ko mbooloo mi bis bis bi ko tey daal mi ngi leen di xamal ne lépp lu ngeen yëkkati ma nga ca lépp lu ngeen sumb rek ma ca ndax moom senegal rek ko ñor liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ko ñor te xam na ni ci tànk yoro ngeen di dox nee na mi ngi ci ñaanal ndam di leen ñaanal suñu borom musal leen cat ak seytaan ba lépp lu ngeen bëgg a seen maam suñ borom defal leen ko ci barke Sëriñ Tuubaa mi ngi sant ñëpp di sant sëriñ maam sax bokk yi mu àndal ndax daaru salaam mooy tuuba Touba mooy Daaru Muxti lépp njabootu suñ Tuubaa la moo tax liggéey yu mel ni bu ngeen ko taxawalee xolam dana ci sedd ndax xam na ni ay nit ñu am jom ngeen ay nit ñu bëgg seen réew ngeen ay nit ñu bëgg ma Sëriñ Tuubaa ngeen kon na xolam sedd na guy mi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Jili sëriñ maam Cheikh lay nuyoo di la siyaare nga jot li ko sëñ Bachir Xaari Awa Ba mi nga xam moo la yabal sëñ maam Cheikh ànd ak baayam bu tedd bi sëñ maamum sëñ am ak rakkab yi ak waa kër am di ko Daaru Salaam gi yëpp mu lay sant di la santale nga jàll nga jotle kàddu gi sëriñ Bachir Xaari Awa Ba mi nga xam ni wax na ñëpp dégg mu ni maam Cheikh xayitam la kon day mel ni sëñ maam Cheikh am na mbégte moo xam ni mënu koo mënu koo waaye da ciy jéem rek sant baayam di léppam sëñ Bachir Xaari Awa Ba mi xam ni ku ne xam na ni lii rek moo ko ñor <laughs> social ak jàppale jaami yàlla yi bañ mën a faju bañ mën a jàng bañ mën a di xewlu loolu ko ne xam nañ Sëriñ Bass Khadim Awa Ba loolu mooy ab liggéeyam tey bu ñëwee Daaru Salaam nag fekk journée bi maam Cheikh maanaam eh, eh, maanaam amal ay donge daara yi bare bare bare di ci faju daara di faju tey jii moom mu yëg ñëw jàppale ko ci maam Cheikh sant na ko baax gërëm na xam na ni moom moom lay jàppale ndax kuy wax social siñ Bass da nga koy bàyyi xel baax a baax kuy wax jàppale askan wi nga bàyyi Sëñ Bass bu baax a baax a baax ko bu nekkee doomam mu ñëw soutenir ko jàppale ci liggéey bi yabal la yow mi nga xam ni maanaam kenn nga ci Daaru Salaam ndax xam Cheikh Awa Balla xam sëñ gaawaan xam si di si si si si si Amadou Muxtaar xam Daaru Salaam bu la yabalee lay mel gën naa bëggal ci yabal gi na yabal moom am Cheikh ndax moom euh, lépp rek day fetliwaat démb di reptiwaat maanaam relation bi démb ca mag ñam sëñ Cheikh Awa Balla si Ngalaan wax na ne kenn du ko jiitu kenn du ko man moom la nga tuddee boole ci yàlla def nga ñëw te jii ànd ak euh, ni nga ñëwee indi liggéey bi sëñ Bassirou Khayre Awa Ba suñ maam Cheikh mi ñu war Daaru Salaam yëpp sat nañ baax a baax a baax loolu bi nga waxee sëñ boobu mi xalifa bi xam na taxawaaye sëñ Bassirou Khayre Awa Ba Daaru Salaam ci Ablaye ji ak ci mbooleem waa yëpp kon ko demee ni maam Cheikh wax nañ sant na baax a baax suñu Bassirou Khady Awa Ba ñaan yàlla gën ko fay yàggal yow mi yàlla def mu yàgg laa yónni ngeen yàgg ànd maam liggéey bi ngeen liggéey seen Tuubaa ci askan wi ak ci doomu aadama yëpp ngeen gën a dëgër baax a baax gën a taxaw baax a baax gën a samp baax a baax a baax